Eh. Ousmane Sonko day ni ki démb ah eh, gannaaw bi muy sasar bi am tey eh, mu nee na amul compte mu muy rendre journaliste wala keneen koo xam dafa nekk ci ginnaaw di manipuler ba dem ba sax di menace. non menace daf ne Ousmane daf ne moom sénégalais yi lay rendre compte amul keneen ku muy rendre compte pourquoi pas nag mu waxee noonu parce que sénégalais yi ko fal ñeneen ñi taxaw di xiir xiiri ci ci ci mbedd mi naan Ousmane lu mu def ak nangam ñoom nañ dem wax ak Amadou Ba mañ wateeluñ ñu parce que ñoom suñ programme doyut doyut leen programme Amadou leen doyoon ñu dem wateel Amadou sénégalais nag li ci ëpp programme Ousmane Sonko leen day kon ñooñu la am droit rendre compte leen mais pas nga xam ne yàq ko tax a jóg. ñi nga xam ne voté luñ ko itam ci askan bi lañ bokk di. ci kaw ñoom ñu nangoo nekk nit bokk ci askan bi na ci ñu nit nangoo nekk nit bokk bi mais boo nangoo maam boo nangoo nekk aw dof ba yàlla ëlbati nga ne man du ma ëlbati ko ca la yàlla ëlbati toogal nga xool ku lay sëñ bi réew mi fi mu toll fi mu toll yaru rek ku fi yaruwut yoon yoon yoon wan la yar parce que nag maanaam dafa daf ma jambal moom lan lay lan lan lay jambati buy jàmbu yow mars 2021 ba léegi lépp loo jàmbu buñ ko ëlbatee xool ko ay kàcc la wax naa la ko fi léegi ñaata journal ñaata télé lañ goofule woon ci dossier imam Aliou Badara Ndaw ñu tiim ko tée fetal ci biir ci biir attekaay ne terroriste la ne nangam la fekk ko ci kanamu njabootam toroxal ko moo tax bu leen yàlla toroxalutoon rek barke Cheikh Tidiane ma xam ne ma xam ne waliwu yàlla amul bu leen yàlla toroxalutoon te Macky Sall ak nguuram gi fekk defuñ bolok dem dem ci imam Aliou Badar Ndaw këram jéggalu ay njabootam baalu leen àq def bolok dem kër Sidi Lamine Niass jéggalu leen baalu leen ak ñu mel ne ñooñee ñu tooñoon te ñuy ay deret waliwu barke Mouhamad nguur gi pare nañ ci kii moom Cheikh Niass la ko wax barke alquranul karim nguur gi pare nañ ci lii bu amut laa la wax ñoom nañ nañ nañ fore new nañ fore new te xam ne réew mii lañ gisee mun mënuñ ko wax Abdou Khadir nañ jàll ci leneen. cheikh bi askan bi dajaloo nañ def ab pétition lu toll ci dix mille signature ngir ñu arrêté Macky Sall ci diggante bi mu yor diggante mars deux mille vingt et un ci. man démb ba tey maa ngi wër fu ñu koy defee fu ñu signé waaw maa ngi koy wër dama ko xamagu démb man ak sama ak sama ñaari soxna yëpp dañuy dem signé ji. kon cheikh bi da ngaa d'accord ci ñu arrêté Macky Sall. bien sûr ma la wax xanaa quatre-vingt et quelques yu ñu rey seen yaay yi anañu neuf mois la ñu ëmb ñëpp jur leen. kenn ku ci nekk mënoon a taxawal mënoon taxawal lu rëy ci réew mi moom mu protesté Amadou Sall ak ay doom ne coow dem Maroc man su ma amoon lu ñu may wax ne ma seex looy rapproché Bassirou Diomaye Faye ma ne ba mu juddoo ba ba ma duggee Pastef ba léegi muy njiitu Pastef mës ta def lu mu àndut Bassirou Diomaye Diakhar Faye mës ta def lu mu àndut benn mbir rek laa laa gën a rëccu pour lan Macky Sall di dugg avion di génn réew mi. ah kon de foofu yaa ci bokk ak commissaire Kayta. barke alxuraanu karim lii lan muy génn réew mi. yow Macky Sall coono yow mi teg fii ci réew mi ba pare kon dem di dund bànneex pour lan daf ñu gën day wala daf ñu gën bàyyi jàpp ay nit ay kilifa toroxal leen ba tegu ndar kàmm ñëpp di ko gis benn kilifa diine mën ta wax parce que tax mën ta wax mooy maanaam sur sarse yi ñu teg sa kaw teg ko sa njaboot li askan wi moom ñu war la koo jox da la ci santaas yow kilifa diine gi pour lan kenn ku ci nekk xam xamoo loo xamoo loo war def parce que ko xamoo loo war def am nga ay jumaa yoo war a tabax am na taalibe yoo war a taxaw am na nangam am na nangam boo demee ànd ak Macky Sall loolu yëpp ay privilèges yoo xam ne da nga ko war ay doomu aadama te état nga ko amee pour lan état di la santaas ay rey yu ñaaw yoo xam ne Macky Sall mosu ca artu maanaam indi jàmm ci réew mi te benn problème nag benn problème mu jigéen bu ñu demoon ñaareel bi la gën a métti mooy mooy Adji Sarr par là dégg naa am na masale xaw ma benn waay bu nekk Thiès masale la tudd dégg naa ko mu ne xaw ma Ousmane Sonko dossier ñoo ko gën a na dugal recours moom Massaly ma fekk ci ko man Cheikh Niass na ko nañ àtte Adji ak Ousmane Sonko. mais Adji moom moomu damaa dégg ne mi ngi préparé benn interview France. waaye na ko defee Amérique Adji Sarr mënut a wax lu saf nit ñi li tax mënut a wax lu saf nit ñi mooy moom moo fenoon weddi aw fenam audio yaa ngi fii ci internet bi di taxawaalu ay doomam ak sitam danañ ko liir moo doon wax ak Baye Mbaye MC ñëpp dégg ko mu wax ko lépp demee am na yoo xam ne sax bëgguñ see sori vraiment mais Adji Sarr. ñun ñoo ko gën a yàkkamti fuuf mu ñëwaat ci réew mi ñëw leen projet parce que dossier Adji Sarr bi li yëpp barke Mohamed bu ñu demee bu ñu demoon Sénégal fii projet ñëpp taxaw Ousmane toog mu toog billahi loxo dana dar gémmiñ barke alxuraanu karim parce que yabaate weesuwul benn jigéen ñëw taal am réew rey fi quatre-vingt et quelques personnes nga jox ko passeport mu génn dem tukki état bii nañ ti kan moo ko génne ci yenn circonstance la ko génnee loolu sax ko topp xaw man tudduma tudduma benn tur mais ku mu mënti nañ nañ la laaj foo ak ku la loolu. bien te dañ ko tijjiwaat dañ ko tallagul rek. Ah, dañ koo tallagul ma ne admesi ka ko defoon amatul doole admesi fi mu toll président de la république mooy xool lu ko neex ak lu justice wax ñu tranché loolu. te dossier Adji Sarr moom duñ ko duñ nangu mukk muy nekk lamb ja ñu doon xaar virgule bi la ñuy xaar ba tey xawma mooy lamb bi waa mbay geeg yaa mbay geeg ak xawma kan du ko doon virgule bi moom nit ñi dañ koy xam incha allah bu àndeen dogalu yàlla waaye talagun ko dafa am ay maam dafa am lu gën a am importance lu suñ kaw loolu la ñuy réglé ba muy jafe-jafe askan wi bi ci des mm, ah président Bassirou Diomaye Diakhar Faye jërëjëf li tax mën a jërëjëf mooy yàqkat du gis lu baax mukk waaye defarkat toujours lu baax lay gis te ñun defarkat lañ suñ mbokki saalum saalum yi ñoo ma yóbbante ci yow ne sant nañ la gërëm la depuis Senghor ba léegi mësu ñoo gis daa bu yéeg joxe cër baykat yi nii ci lan bi ci jiitu saako engrais juróomi junne la doon jar mooy vingt cinq mille yow mu xamul juróomi junne Bassirou Diomaye Diakhar Faye yéeg xalaat xam ni moom ay gerte ak i dugub ak i bësi ak yu demee noona moo fay njàngam kon dafa war a xoolaat fa jugee njëkk muy def lenn avant tout bi ci des réew pour nga teg ko ci yoon da ngay xool baadoola yi lañ tële nga taxaw ci ba pare soog di xool ñi am lañ tële c'est bon importance parce que ki naan ceeb bi nañ ko wàññi nañ ko wàññi nañ ko wàññi mi ngi mën a jënd chaque jour cent kilo ceeb et pourtant saalum saalum ba ca àll ba bawol bawol ba ca àll ba njàmbur njàmbur ba kajoor kajoor ba ñoom ñëpp ñu dajaloo seen doole di ñoom de amaana bët bu set dañuy dem ci bitik bi lépp kilo ceeb kon boo leen defalee li nga xam ne moom mooy mooy yombal seen kilo ceeb yooyu sénégalais yëpp dañ laa waroon a tàccu mooy lan ba nga xëyee wàññi engrais bi gisuma benn journal bu ko bind gisuma benn euh, euh, homme de presse bu ci wax te loolu moo kon actualité bu pour nit ñi wax ci lu doon jar vingt cinq mille li doon jar vingt cinq mille ñu wàññi ko ba six mille cinq cent waxuma la ñu wàññi ñu wàññi ko ba ñetti junne de li doon jar vingt cinq mille juróomi junne mu wàññil ko baykat yi bañ mën koo amee saako bu ne six mille cinq cent kooku buñ ko waxut buñ ko waxut jor ko njël du duñ gor buñ ko waxut ajaaraama duñ gor buñ ko waxut merci duñ gor buñ ko waxut thank you duñ gor buñ ko waxut jërëjëf duñ gor Bassirou Diomaye fay jëre jëf ñun baadoolo yi sant nañ la ci loola gërëm la ñaareel ba nga ñëwati li nga xam ne moo toj dëkk bi muy li ñu ooyee ay homme d'affaires ak ak yenn politiciens yu yàqu yi jël suufu Sénégal yi dajale ko ñii deux cent hectares ñii trois hectares ñi nangam nga nangu lépp taxawloo tabax yi a taxaw pour régler réew mi kooku bu ñu sant doo gor ba mooy am na benn paa bu ñàkk bu ma dégg ci benn télé ma foofu mu ne Bassirou Diomaye Diakhar Faye c'est la première fois ñu gis président buy bale xanaa gisoo président président Burkina Faso bi xanaa gisoo président président kii bi euh, nu mu tudd ah président Rwanda bi bi ci desit mooy ñun avant ñuy jël réew mi dafa am lu ñu wax sénégalais yi dañoo téye bale bi ñëpp dañu gis ñu dañu dañuy bale réew mi dañuy bale dëkk bi. mais cheikh bi bale googu gars yi nee na bale gi mystique la Jomaa dafa am lu ci bale gi. nañ ko tuddee rek na waaye ci ëpp importance daal mooy lépp lu ñuy def ñun njëriñu Sénégal bu nekkee mystique baax na bu nekkul mystique baax na te am na yoo xam ne du waxu ma ci sori mais li ëpp importance askan wi war war war koo jëriñoo war koo xam mooy bale mii ñu bale dëkk bi bu dëkk bi set. bale miñ bale dëkk bi nii ba dëkk bi set bu ànd ak yàlla noonu lay bànneex di duggee ak mbégte bu ànd ak ndogal yàlla imagine toi Bassirou Diomaye Diakhar Faye benn jour daf ciy tukki génn dem réew ñëwaat xëy dem ay gàmmu ñëwaat xëy dem ci dem ci liggéey boo gisee seen kanam ñoom ñaar moog Ousmane nag xam ne ñii dañoo sonn noppaluwuñ bu fekkee nit ku sérieux laa wax ku Sénégal tax a jug kon président Bassirou Diomaye Diakhar Faye fi nga teg sa tànk foofu la fi nga teg sa tànk foofu la bu ko teggi parce que baadoolo baadoolo baadoolo lay njëkk a taxaw baadoolo buñ ne baadoolo nag mooy ki nga xam ne loxoom jotul gannaaw sa gannaaw sa wayjuru góor mu ngi bay sa wayjuru jigéen mi ngi bay say mag ak say rakk ñu ngi bay kon jox nga baykat yi cër ba mu mat sëkk bi ci des mooy gannaaw buñ génnee ci lii nag ndaw ñi nañ taxawaat seen réew te xam ne